ñi jóge Espagne ñi ñi jóge France ñi jóge Maroc ñu dikk fii ñu boole ko ñu daal maanaam ñu tëj frontière bi wax dëgg yàlla am na ñoo xam ne lekkatuñ naanatuñ hôtel bi ñu dëkkoon doon fay gars yi ñi li ñu yoroon ci xaalis jeex na suñu toll ay bar lañu fa yor ñu génn nañu waaw ay xale ay bébé la ñu àndal ak jigéen ñëpp ñoo ngi di toog taxaw fii bëgg dëkk suñu njiitu réew daal ba ñu mën a génn fii ñu fii ñu nekk ma ñib bi dong nag lañu bëgg soxla wuñ leneen soxla wuñ xaalis soxla wuñ dara ñibbi lañ jaar soxlawuñu la ñu ngi nuyu ñëpp nag ku ñu dimbale daal yàlla fay la jërëjëf leen ziare leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yoon di ñu di leen ma saw di ma saw sama bopp di ma saw ñëpp jullit fi nekk rek ak ñu yore ay doom yu ndaw ñu fi nekk ay màgget ñu wéra di ñëpp maa ngi leen di ma saw di wax ne wax dëgg yàlla di ñu dimbale ñu jël sonn na sonn nañu wax sonn bi yàlla cause là moo jëloon suñu tur jël suñuy passeport jël suñuy numéro enregistré ñu xamal ñu ne suñu këyit lépp nga frontière diñ ñu jeudi ak vendredi dañuy génn jeudi bi ak vendredi ñu toog ba ci xaaju guddi ñu envoyé ñu message ne mënatul nekk nañ bàyyi ba lundi mardi lundi mardi ba jot ñu ne nañ départ ñu départ ñun ñëpp xam ne suñuy kër ku ci nekk kër da nga dëkk dangaa jaay say bagage jaay la nga fa amoon jaay la nga jaay lépp jël say bagage oto ñu di ñëw frontière bi ñu ñëwee ba tolloog nag 40 kilomètres euh, frontière ñu téye ñu téye suñu passeport nag ñu doon daal ko ñu dem kon nañ nag suñu passeport logé loo ñu hôtel ñu logé hôtel na ne nii la ñu yoroon leen woo seen mbokk ñu leen paas lépp fay nañ ko ci hôtel bi amuñu lekk amuñu naan moo tax a jóg waaye ñun jóguñu pour suñu bopp hmm. ñun jóguñu pour buñ doon jóg pour suñu bopp dañuy toog ba am lu leer ba yéeg na frontière ubbi na bu doon janvier bi njëkkoon a dégg sax dañuy toog xaar waaye ñoom ñooñu ne suñuy këyit pare na ma nga frontière dem leen départ leen lundi ak mardi di ngeen jàll ñu départ fa samedi ñuy départ fa dimanche ci guddi bi ñëwee ba dag maan ñu tëye ñu ñoo ngi nii nag amatuñu ñu lekk amatuñu naan dimbal la ñaan te yàlla tax ak luñ fi génnee ndax ñi fi nekk mag yore ay tension seeni garab jeex na ñi fi yor ay doom seeni doom a ngi feebar ñi seeni doom ak seen biir a ngi daw sonn nañ daal ba fa sonn di yem dimbali nañ nag biig ci guddi hôtel ba def suñuy ma ci mbedd mi ndax amatuñ lu ñu fayee amatuñ ñu fayee ñu ngi ci mbedd bi ñun ñëpp taxaw moo waral suñu coono ba tax ñu def vidéo bi wa maa ngi ziar ñëpp di ziar ñi fi teew ñëpp waaw di ziar waa autorité sénégalais di wax ne vidéo bi lañ ko bëgg a mu nekk naa ni mag ñoo ma ko délégué sax ko maa fi gën a ndaw ci ñi nekk waaw di wax ne nag ñun euh, dañoo diggoon benn liste bu nga xamante ne nii waa ambassade waa consulat ñoo defoon dérogation pour mu génn Sénégal Maroc ba Mauritanie ñu accompagner ñu ba biir Sénégal léegi nag ñu defoon liste bañ defee liste bi jotul woon sotti ba yàlla def fa yii nii la sotti léegi nag tey jii nii le 24 lañ départ le 24 ba le set ñu ngi ci àll bi boobaak léegi nii amul dara lu leer parce que ba ñëwee ba fii egg fii nii policier gendarme marocain yi tey suñuy passeport ne doo leen egg ci frontière bi à quatre-vingt-cinq kilomètres parce que dañoo baare foofu ñu policiers yooyu ñoo fa baare léegi nag boobaak léegi ñu ngi déggante ak ambassade bi ak consulat bi mais waxaguñu dara lu leer te instant bi mënuñoo delluwaat ci dëkk bi ñun def parce que suñu kase yëpp périmé na parce que fii nga def fi six mois pour mën a génn ñu renouveler la sa nga dugaat te ñi fi nekk ñëpp dépassé leen 6 mois instant bi mënoo dugaat en tant que amoo kase bu bees kon nañ fi torop parce que hôtel yi ñu nekkoon ba ñu ñëwee début bi ñu ngi doon fanaan di fay normal mais bañ demee ba xaalis bi ñoroon jeex amatul lu ñu fay hôtel naar yi ku nekk xam nga seen jikko dañoo génn ci biti instant bi ñu ñëpp ci biti lañu tante ay tante di fanaan ak seddaay bi nii te képp ku nekk xam nga Maroc fii Maroc nu mu dansé waaw di wax ni nag ngeen jàppale ñu te yàlla tax ngeen defal ñu solution ñu génn fi ñu génn fi lañ bëgg soxla ñu lekk soxla ñu naan soxla ñu fu ñu dëkk nañ fi génn rek loolu lañ bëgg parce que am na ay maire yi fi nekk ak ay paa yi fi nekk am na ñoo xam ne dañoo feebar te yàlla xam na ni tey jii nii seen médicaments yi fii gisooy pharmacie àll la fi nekk ni àll la quatre vingt cinq à peu kilomètres ñu doon ñaan nag ngir yàlla ñu génn ñu fi waaw autorité génn ñu fi ñu génn fi ci barke Seydina Muhammad parce que sonn nañ fi torop sangu bu set muñu ko ndox bi sam na xorom mu lekk fii amul ndugg amul dara maanaam instant bi dañoo tumurankee bu fekkee wax dëgg yàlla rek a tax dafa sonn ñu fi wax ni nag bëri woon bëri nañ torop nag bëri nañ torop à peu man ba ma jëlee liste bi am naa quatre-vingts yoo xam ne ñu ngi fii nii waaw ñu ngi fii nii nii nii nii actuellement nii am na ñoo xamante ni nii jotuñoo accident dañ leen a bloqué ci yoon ba parce que Maroc dafa def confinement bu bees instant bi mënuñoo dugg voilà te instant bi nag ñu dund fi métti na torop torop